السالكين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي حسن احترام جاد لنا باق تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلا وكل شيء والكتاب ندام نويت شكر عليك بالقلام وخير يا سجوامي الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خائدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله عبوت بزام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبل وضوت بيزام تبت ربي ظاهرا بذا الندام لك وخبله عبوت بيزام وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إمام البرايا كسب سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم والنبي المنتقى المنير ينير قلب كل مستنير أخمدنا المختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باها نبينا الأخمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأخمد نور الأنبياء عليهم أزكى الصلاة من ربيا كتاب أحمد سوى ونسى وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى للمنتقى للمنتقى أنا يبقى سيدنا محمد للمنتقى الذي تقدم سبق ذكر الحكيم من إبليس لبق عليه صلى بسلام صرمدا في الآل والأسباب وكل حمدا للمستوى للمصطفى للمصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد انا يسكن أكد في كوني أغمدنا المختار نور الكون أغمدنا أخمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فأمد صدر العلوم نافعات أفجمت لم ينني شك ولا توقم ولسوى قلبي ينقل وقم قلبي يسنه الجميل عن قبيح وليقول نور في مال يبي علمني من لوقي والقلم من يقول علم ما لم أعلم زلم نفسه الذي عداني لأنه البارس من عداني يعصمني الباقي من الأقدار في دار دنيا وتلك الدار مع النبي الملتقى المنير زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي وقبى بنوري من زن غير الله يوني أو يدر فزاك في دارين ذو الدين السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi leen di ziyaare ñëpp di jégalu bu baaxa baax ci kaddu yi ñu yëkkati ci kanam sëriñ bi di ko tuub di ko jégalu bu baaxa baax di dalal gan gi bu baax Cheikh alsan di ko sant di ko gërëm di ko xamal ne ko itam dëkk bii mu ñëw muy dëkkub Cheikh ibrahim fati borom Darul mu'ti di dëkk bo xane ku tuddu yonente bi alayhi salaatu wasalaam sa xel warna naa dem ci dëkk bi ndax borom dëkk bi kat bo fi ñewé ding fi fekk mu tuddu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ay domam ding fi fekk mu tudde abou bakkar ding fi fekk sayyidina Omar ding fi fekk sayyidina usman ding fi fekk sayyidina ali ding fi fekk sayyidina khalid ding fi fekk sayyidina Abbas ding fi fekk sayyidina hamzatu te ñoon ñëpp ak Zubayru te ñoom ñëpp saxaaba yi la leen tuddee alayhi salaatu wa salaam loolu yi nag bëgg gum bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax mu def ko waaye loolu it nag sëriñ bee ko ci yar xaada lahu llaahu maxtaara lahu moo tax bi sëriñ bi dëgmalee yonent bi alayhi wa salaam mu dëgmal yonent bi dëgmal saxaabatul kiraamam yi sëriñ bi toog di wax ak yéen alayhi salaatu wa salaam lañ ko tudde loolu doy na sëkk sëriñ bi nag mi lay sant bu baax a baax a baax di yëg sa taxawaay di yëg jàmm ji ngay dox ci réew mi foo toll itam yitteel la lool mi ngi la ci ñaanal tam suñu borom dolli la ci tawféex te dolli la ci ndimbal di leen wax ne daal ñëw ngeen ci dëkk boo xam ne dëkkub diina la muy bañ ko sancee 1912 ak léegi amul genn guddi aj genn guddik altine goo xam ne duñ fi gàmmoo te loolu boo ko sëriñ bi sancee ak léegi léegi mu def ab diir te am na barab bu ñuy wax mawlut guddi altine gu ne boo demee da nga fekk ñuy gàmm te loolu yi da ngay xam ne bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam dara féetewu ko kaw waaye moom doone gulet ndax sëriñ bi da ko yor te Serigne Touba moom comme yar boo bëggee yonent bi waa nga bëgg saxaaba yi maanaam jaadu na ci yow. kon nag Serigne baa ngi lay sant maa ngi jégalu bu baax baax ci kàddu yi te la wax ne daal gis na taxawaay bi gis na liggéey bi gis na itam yitte yi ngay def ci réew mi yëpp barki de moo njaay kaso yi wër nga fa joxe fa ay ñam loolu yëpp itam bëgg goo bëgg réew mi ak bëgg goo bëgg jàmmi réew mi bëgg ñëpp ne ci jàmm moo tax nga def ko loolu yëpp nag maanaam yàlla mi ngi ñaan yàlla defal l ci tawféex di la wax ne daal ñëw nga ci dëkk boo xam ne dëkkub diina la dëkkub islam la dëkk la boo xam ne foo tuddee Touba rek daarul moxti nga ciy teg loolu yéen nag sëriñ bi moom xam na ko te itam ñi ngi ñaan moom itam mu yàgg fi lool te wér di ko mu yàgg fi lool te wér di jégalu bu baax baax ci kàddu yi day ngànt waaye mënuñoo mënuñoo mënuñoo wax ñu ngi jégalu bu baax mbooloo mi aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu gannaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh du Bamba tey ñu ngi fii ci Darou Mouhty dëkku maam Thierno Ibra Faati mi ñëpp xam nga xam ni Serigne tubaa moo ni woon Thierno mooy sama loxol ndeyjoor keroog bi Serigne tubaa yi dem ci géej gi njaboot gi maam Thierno la ko dénk tey nag ñu ngi fii. ci kanamu xalifaam nga xam ni tey moo yilif daaru muy cheikh Mouhamadul Bachir antañang mu baax mi nga xam ni tey moo toog toogaay maam Cerno Ibra Fàtti Mbàkke ñu ñaan nga yàgg fi lool te ànd ak wér bi ñu dugg see ànd ak sunu kilifa ànd ak koo xam ni ci réew mi kenn du ko fi présenté ci réew mi ak bitim réew muy Cheikh Alsaan Seen tar yàlla mu baax mi toog waaye yittem yëpp mu jeexal ko nag ci sayyiduna Muhammad di ko liggéeyal bëgg ko ba ku ko tudd sa xel dem ci waa joojee nga xam ni ñu ngi ci weeram ñu ngi jëm ci guddeem muy sayyiduna Muhammad Cheikh Alsaan nga ci dëkk boo xam ni ah dëkk la boo xam ni bu nu tuddee Touba rek mën nañ cee teg Daarul Moxti waaye yow ki ngay waaje ak ki ngay walle muy rasulillahi ba am ñaari doom yu jigéen ñëpp nga tuddee yonent bi nga xam ni ku tudd yonent bi ci sa kanam baa nga yëg ni am na ku bëgg yonent bi ci sa kanam saalal fekkiwu ko sa doole fekkiwu ko ngir cofeel ki nga am ci moom waaye yëgal na ni la dëkk bii nga ñëw di daarul muxti guddi altine ju jot ñu ñu ñu def gàmmu rasulillah kon ñëw nga foo xam ni fi nga ñëw ak waxtu wi nga ñëw muy weeru gàmm te gàmm buñ ko tuddee xel yi dem ci yeneen bi ah seexaw seexal san tey bu doon wax ni eh, eh, eh, bi nga diire rek mën noon wax ni jam nga ndax ndax bi nga toogee ni ni ni géwélu daarul muxti duggee شيخ محمد البصير دغلو لين اه سما خيل دا ديم تي كيروك بي بي جيبل بي نيوي تي سيرين شيخ غين فاطمه ديكو تاغ ام ام كوني تي وتام اه بغوكو فم سيرين شيخ نيكو نابيل تا بايكوم واخ بودي جود ام ناكو بودي لوما ماي يورناكو كون ني شيخ محمد البصير داف داي واني ني جيبل اك دار المختي يغنن كون نك لي باخ لي نين خام وقت تي شيخ محمد البصير نيغي نيان yan wii ak liggéey bi mu nar a liggéeyal way juró moom maam Cerno mu am ci ndam lu kawe njottam waaye Cheikh Alassane di leen xamal ni jotaay bi yàgg na ko bëgg de ci màggal gi bi Serigne Abbas mu baax mi bi mu fi bàyyi ko ñëw na fi Cheikh Alassane ñëw na daaru fekk Cheikh Abbas fii New York moom mu jëflanteeg Serigne Abbas sëñ baas def ko doom sëñ Abbas bàyyoo ko keroog jotaay ba yaatu woon na lool waaye nag bi fi bàyyi koo moom seexal Alassane mu fekk ko bitim réew nekk ci àll ba di liggéey waaye bi mu ñibbisee mu xam ni màggal gi xat mu ni naa bàyyi ba màggal gi jàll ba nu dugg ci weeru rasulillahi ma dem daarul muxti jaale ji nag Serigne Basiru Anta Ñang mi nga xam ne tag tey ma toog toogay daru waaye nag su ma ko jaalee nag danaa danaa ñëw nuyu si ko dana danaa ñëw sant si ko waaye danaa ñëw fasante ak moom wëllëre waaye danaa ñëw nag def ko bàyyi mu doon sama bàyyi ah Cheikh Mudul Bachir daal dama yem ci jaale ko déedéet damay ñëw joxante ak moom loxo ndax Daarul Muxti ku leen xam xam leen ci ci ci ni nu fonkee Sëriñ Tuubaa ak ni nu jeexee ci Serigne Touba ku fi dëggu xam ni dëkk bi dëkku sariya la Cheikh Alassane kii toog daaru rek la am daaru rek waaye kii toog Cheikh Ahmadoul Bachir mooy borom mbég mi waaye waaye doomi borom mbég mi nag di Cheikh Mouhamadoul Mountakha nag tey mooy Serigne Touba nga jaar Touba jaar ci jumaa ji nga xam ne fenn taxulaa jóg lu dul daarul moxti nga ne ah du ko jaare fenn biir Touba laay jaar romb jaar ci Serigne Touba wanni ko maa ngi jëm nag daarul moxti maa ngi jëm ca ca rakk ja maam cam waaye bi nga ñëwee toog Mouhamadul Basir mooy mooy mbégte te yeneen ci bee mbégte weeru gam nga jóg ni bala maa dem fenn ki may njëkk ki may njëkk a ziyaare ji ki may njëkk a joxanteeg loxool mooy mooy xalifa daarul moxti mu ngi ni toog ki tey moo yilif daaru kon nag sa ñëw gii ñu ñu ñu yëgal sëriñ bi ni bi muy ñëw ànd nag forte délégation jëwriñ ale ndaw di doomi abbas ndaw bi ñëpp xam ak Hassan Diallo ak Cheikh Malick magam jee taxaw ak imam Sall mii nga xam ni imam la ci Parcelles Assainies ak Cheikh Mouhamadul Mansour si mu baax mi toog bokk tamit ci ci mi ak Cheikh Albunaama bokk ci mbooloo mi ñoom njoogoog ñoom pap jaxateeg ñëpp waaye nag ci biir délégation boobu nag ngeen am ci doom am ci taalibe am ci koo xam ne daaru rek lay wàlle lu ma am te indiwu ko daaru xol xol xolum du sedd xolum du feex muy Seydina Alioune Badara mi toog nga xam ni dëkk bi rek la bëgg bi ñuy ñëw nim nu gatodoo nga xam ni kii ki ñëw tey daaru bu ko bu ko yëgle woon seex bi ñëppay génn gattandu ko ndax gan gan gi mu am ak gan gi ñëw kon nag ñu sant sëriñ bi ñaanal ko yàlla yàlla dëgërël ko yàlla taxaw dama dama doon def euh, présentation bi waaye damay bàyyi cheikh bi ci boppam mu yëkkati ay kaddu yoo xam ne sëriñ bi dana dégg ak kaddoom ak njaal gi nga xam ne dana ko ko jaal jëmee ko ci ba Bassirou Mbacké cheikh bi ne gannaaw bi ñu sante yàlla des nee na des di ko sant di di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay nuyu sëriñ nuyu sëriñ bi di ko ndokkeel nee na di ko ndokkeel ci weeru turandoom bi nee ci wéru turandom bi di ko santaat bu baax ne di ko santaat bu baax ci dalal ci dalal bu tedd bi bu tedd bi ñu dalal bi nga xamni mom ngeen ko dalal bi may dugg daaru nee bi mi dugg daru yegsee ci buntu kër gi. bi mu yegsee ci buntu kër gi. ak bi ñu duggee ci biir salle bi. ak bi ñu duggee ci biir salle bi. ak ni ñu ko teeroo moom. ak ñu ñu ko teeroo moom. bi mu génnee ci néegam. bi nga génnee ci sa néeg. mu nekk mu nekk. lu rëy ci ñun. nee na lu rëy ci ñun. ñëwoon nañu nag. ñëwoon nañu nag. ngir jaale ko. ngir jaale ci suñu baay bi fi bàyyi ko. ci suñu baay bi fi bàyyi ko. muy Serigne Abbas. di ko ñaanal. ne di ko ñaanal. yàlla yokk leer ca moom. yàlla yokk leer ca moom. ñëw jox suñu njaal. nee na ñëw jox ko suñu njaal. mu ko njabootu mu jébbal ko nag njabootu borom daaru gi yëpp. di ko santat nee di ko santaat. ndax xam nañu ne yéeneem yëpp. xam nañu yéeneem yëpp. ci toogaay bii mu toog. ci toogaay bii mu toog. ak yéeneem yëpp mooy réew mi am jàmm te loolu la ñëpp war a dox ci jamono ji ci jamono ji ñu nekk ñu nekk réew mi am jàmm rek mooy réew mi am jàmm te loolu te loolu rek la saxoo te loolu rek sëriñ bi saxoo moo tax sëriñ bi moo tax sëriñ bi ci weeru tedd wi tedd wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. muy weeru sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dinaa ci waxaale sax. ne dana ci waxaale sax. baat bi ñëpp di wax. baat bi ñëpp di wax. ñi dégg. ne ñi dégg. dëgg-dëgg. dëgg-dëgg. diggante. diggante. yonent bi. yonent bi. ak Cheikhul Khadim. ak Cheikhul Khadim. mooy jërëjëfe Serigne Touba. mooy jërëjëfe Serigne Touba. ci taxawaayam. ci taxawaayam. ni mu meloon. ak ni mu meloon. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu le. loolu le. moo wesaarewu. moo wesaarewu. jàpp jàpp daaru. jàpp jàpp tuuba. képp koo xamante ni. képp koo xamante ni. sa xol mi ngi ci gën gi mi ngi ci gën gi mindeef. sa xol sa xol. day tabbi. dafay tabbi. ci moom ci moom. sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi ñëwoon sëriñ bi. ne mi ngi ñëwoon sëriñ bi. di la jox suma kóllëre. nee di la jox kóllëreem. ndax xam naa ne. xam naa ni. ku ko mën a téye nga. ku ko mën a téye nga. wax nañu ko. wax nanu ko. jëwee nañu la ko. jëwee nañu la ko. wax nañu ko foo nekkul. wax nañu wax nañu ko foo nekkul. jëfee nga ko. jëfee nga ko. ba loolu. loolu. law fépp ci réew. law nag ci réew mi. te yaa ngi fii toog biir te yaa ngi fii toog nag biir daru. moo tax ma jox la saa bas. moo tax mu jox la basam. wëlbatiku it. ñaan la ñaan la nga boole ma nga boole ko ci njaboot gi loolu daal loolu daal sàkku nañu ko ci sàkku nañu ko ci yow xam nañu nit xam nañu njaboote nga ñëpp njaboote nga ñëpp njaboot googu ñun njaboot googu ñun lañu bëgg a tàbbi lañu bëgg a tàbbi suñu yéene nag suñu yéene nag dafa am benn borom xam-xam bu mag dafa am benn borom xam bu mag bu wax ne soo amee mission bu wax ne soo amee mission soo ko doxee soo ko doxee def nga li la war. def nga li la war. soo ko doxul. soo ko doxul. war nga. war nga. ki roof ca yow. ki roof ci yow. mission boobu mission boobu. te man sama mission yëpp. ne mission am yëpp. mooy fépp fu diine ne. mooy fépp fu diine ne. fépp fu nit ku baax toog. fépp fu nit ku baax toog. di ñaanal réew mi. di ñaanal réew mi. rawatina sa jëmm ji. rawatina sa jëmm ji. ñu dox fa ñu ne. ñu dox fa ñu ne. ñëw ca moom. ñëw ca moom. sàkku ca moom ñaan. sàkku ca moom ñaan. jox ko sunu kóllëre. jox ko sunu kóllëre. bàyyi koog sunu bopp. bàyyi koog sunu bopp. moom moom. ndax jàmm jooju muy dox. ndax jàmm jooju muy dox. dafa mel ni. dafa mel ni. ku toog ku toog. ay junni at. ay junni at. di loxoom. di tàllal loxoom. dékku ko yàlla. dékku ko yàlla. yàlla nangul ko. yàlla nangul ko. loolu mu ko nangul. loolu mu ko nangul. soo ñëwee tabbi ca moom. soo ñëwee tabbi ca moom. dana dana dana dana daganal sa yëf. dana daganal sa yëf. dana roof ci yow mbégte. dana roof ci yow mbégte. mbégte moomu sëriñ bi. moomu sëriñ bi. bi ñu toogee ak yow bi ñu toogee yow. am nañu ko am nañu ko. bu kawe lool bu kawe lool. suñu njort suñu njort. daa mel ni daa mel ni. la daloon baykat bi la daloon baykat bi. moo ñu dal tey moo ñu dal tey. mooy tabbi mooy tabbi. ci tabaski lool ci tabaski lool li dafay def ca jaam. dafay def ca jaam. lu raw mbégte lu raw mbégte. te yaakaar naa ne yaakaar naa ni. olof olof. mi ngi koy woowee mi ngi koy woowee. mbégéré mbégéré. loolu loolu. dal nañu dal nañu. ci suñu toogaay ci suñu toogaay ak yow. yal na yàlla yàggal sa yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay. mission yi nga am. mission yi nga am. am ko ci daaru. am ko ci daaru. daañu ci ànd ak yow. daan ko ànd ak yow. waaye ñaan yàlla. dañu ñaan yàlla aussi. lépp loo xamante ne nas ko. lépp loo xamante ni nas nga ko. ci dëkk bu tedd bi ci dëkk bu tedd bii. yal na sunu borom. yal na sunu borom. àggale ko. àggale ko. nga fekke nga fekkee tatal. tatal ci barke yonent bi. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci barke sa maam. ci barke sa maam. ci barke Seexul Xadim. yal na ko yalla def. maa ngi lay jéggalu maa ngi lay jéggalu aussi. ci waxtu wi sax. ci waxtu ñu la génne sëriñ bi ñu ngi la ciy jéggalu jéggalu bu baax waaye xam nañu ni sa mission yëpp mooy nekkal fi sunu borom ak ñi ko fi nekkal yàlla na yàlla fay la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu njaboot gi ci ni ñu ko dalale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 muy aliyun Badara ak Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xamantene mom lañ ko tuddé fi ci kër gi la nek ak mbollem njabot gi nga andal yépp tew ci kanamam tay mom néna dafa am mbékté mu rëy rëy ci kanamam mo xamantene mo ci am rek amna lu ko upp ndax li tax moy li nga lol rek doyna exemple moy bibliothèque bi nga lol rek doyna exemple mooy wane ci ne moom li ko ñor mooy li ngay dox loolu rek ko ñor te mooy diine te mooy lislaam te mooy ay mooy ak bokkoo mooy doon benn ndax bis bu xëyee ci loolu lay xëy ndax daara jii nga ñëw tey ñi nekk ci dëkk bi yëpp si na ko seere mooy daara ji nga xamante ne mën nañ koo tudde li wala fii tuddee garam place mooy waxtaanukaayu boroom xam-xam yëpp mooy waxtaanu kaayu xale yëpp mooy waxtaanu kër mooy kërug ñëpp ñëpp la boole ñu doon benn Sering Abbas moom mu ngay wax yalla sun borom yok ay leram fa mu nekk ci barsak mu nekkon jëm jo xamne ne moom mi dañuy ben ndax sëriñ Abbas moom fi joge ab taw mom mi la ko tudde toujours daf koy wax ne bari waana ci yoonu sax ño xamne ne daawuñu ko gis nit ko xamne moy sa mak di sa kilifa di sa yep say mak nek fi mu jël ab taawam tudde kon kóllëre gu sore sore la won digganteem ak kon mu ne kër googee nga ñëwoon béréb bobé nga ñëwoon ba kooko jàppee woon la baay jàppe woon la doom jàppe woon la euh, jëwriñ ju nekk ci biir kër gi nee na fii nga ñëw tey dafiy yokkoo cër buñ la joxoon foofu danañ da jox cër bu ko ëpp fii ndax gis na sa taxawaay ndax moom du kuy umpule ndax ni ma la joxe exemple léegi ne la li nekk ci sa kanam doone la exemple moo lay wone ne la lu dox ci réew mi mi ngi koy xam lu ci nit di doxit mi ngi koy xam mi ngi seetaan sa dalte mu ngi seetaan sa yarute mu ngi seetaan nit bëgg gi nga xamante ne bëgg nga ko réew mi nga xam ne bis bu set yaa ngi ciy dox ay jéego yépp yoo man ngir réew mi nekk ci jàmm ngir réew mi dal ngir réew mi nekk ci mucc ndax di ko Cheikh Mouhamadul Basir léegi am na benn documentaire bu ñu doon seetaan boo xam ne yaa nga ca ay kii yu ñu doon joxe ci prison yi biñ ko ko waxee moom def caa teg ne ah lii de doy na bëgg jàmm ndax nit ñu nekk ci ak jubadi ak ñu ñu tooñ ak ñoo xamante ne yoon a dal ci seen kaw ñu dem ba téye leen ci bërëb xaaj na war leen a fitnaal wala war leen a teg ci yoon yow ñooña nga di leen bàyyi xel ngir bëgg ñu dellusiwaat ci kaw suuf si ba nekkaat ay doomu aadama dafa doonoon image bu kawe ci moom dafa doonoon lu réyoon ci moom ba tax na ñëw gii nga ñëw yàgg na ko bëgg tey la ko suñu borom dogal ah la ca desit nag mooy tagg wi nga xamante ne yaa ngi koy wut ñi di la ko tagge muy tagg yonente bi sallallahu taala alayhi dangaa ñëw ci bërëb boo war a ñëw mm-hmm. dangaa ñëw ci béréb boo xam ne boo ñëwee loolu nga fiy fekk mm-hmm. Cheikh Mouhamadoul Basir junñu ne ko léegi ci waxam fii rek mooy béréb boo xam ne 1912 ba léegi tabax nañ fi ab béréb boo xamante ne al dimanche guddi dimanche gu nekk danañ fanaanee mawlud ba bët set mësta manqué 1912 ba léegi benn bis mosu ca manqué ñi koy def bu doon taw wala muy tawi xal wala muy tawum ndox wala lu metti metti wala luñ bu ñu demoon ba amuñu lu ñu lekk guddi googu danañ dem defi ko boobu ba léegi mos a manqué fii ci dëkk bi gàmmu gii ñuy jub si niñ koy doxalee mooy gàmmu gi ñu jub si bis at mu jot ñetti ñetti ñetti bis lañ koy def ndax danañ ko gàttandu ca bis bu njëkk ba màggal bis ba gunge ko ca bis ba sëriñ bi door a ñaanal nit ñu ñuy beeku noonu lañ koy waaji te kenn du nekk sa kër ñëpp sëriñ bi da leen di wax ñu dem ca penc ma kenn ku nekk da ngay tëj sa kër ñëpp ci digg penc ma lañ koy defee toog fa toroxlu ba ñetti fan jàll kenn ku nekk dellu sa kër kon loolu bëgg yonente bi sallallahu alayhi ko si borom bi noonu nga ko ci waxee bi mu demee ba nga xamante ne bi fi sëriñ Touba nekkee nga xamante ne ay doomam yëpp da koo tànn ñi ci mag mu tudde leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom mi yonente bi lañ ko tudde ñi ci ëpp yonente bi lañ leen tudde bi Serigne Touba defee loolu ba nga xamante ne moom agsi na ci moom ñi ci des ñëpp bëgg gi mu xamoon ne Serigne Touba bëgg na ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam tax na ay doomam yu mujj yëpp ashaabul mubasharata bil janna la leen tudde mooy fukk yi nga xamante ne yonente bi goreel na leen ci goreel na leen ci safara nga xamante ne seen i kër a nga àjjana ñoom ñëpp moom la leen tudde Cheikh Basirou lim na ko léegi Seydina Subayru Miqdaar Xaalid ibnu Walid Amsatu Aliyun ñëpp desul kenn Seydina Ousmane desul kenn ñoom fukk yëpp kenn ku nekk tudd na la doom kon loolu dafay wane ne ñëw nga ci sa bis ñëw nga ci sa kër ñëw nga ci sa jataay sëriñ bi nag bi mu la dalalee ba noppit la muy tëjee ay kàddoom rek nee na na sam xel dal la ngay sàkku ci moom dana la ko defal dana nekk sa waajur dana nekk sa kilifa dana nekk sa xarit dana nekk sa lépp lépp loo xamante ne war na la caa jàppale wala mu war la caa taxaw dana ca taxaw ba dara du ci manqué ah, moom nag nee na taxawu ko moom yomb na ndax dara ñoru ko du boppam du njabootam du dara li ko ñor daal mooy lii ko sëñ Tuubaa bataleel borom daru batale ko ko te mooy dëkk bii mooy jàngukaay mooy daara yi mooy mooy mooy mooy jàkka yi loolu la bëgg ku ñëw ci dëkk bi xam ne borom dëkk bi sunna rek la doon dundal ci loolu rek la nekk moo tax wóoteelul dara boppam tey boo duggee ci biir bay waxtaan ak moom incha allah yu ci bari dana la ko leeralal waaye li ko ñor mooy loolu ma la wax nii moo ko ñor ndax bi nga xamante ne ñëw na lëm projet bi mu njëkk a yëkkati nga xamante ne dis na ko tàmbali bu ñu gàmmoo ba noppi incha allah bu soobee yàlla bi mu njëkk a waxte dafa wax ne Serigne Mountakha ginnaaw dafa taxawal ab jànguwaay boo xam ne université la bëgg xale yi lañ doon def ci ñoom ci bitti ba buñ ñëwee suñu mag ñi fi nekk ñu di leen weddi mooy ñu di leen wax lu ñu wër leen war ta wax léegi sëriñ Muntaxa ne nañ formel suñu bopp suñu njaboot ndax buñu leen yaralee leen suñu bopp duutuñu ci manqué dara sëriñ bi ba mu ko déggee ne sëriñ Muntaxa dafa taxawal ab université la mu njëkk mooy daal di taxawal fii boo xamante ne day tàmbulee ci xale bu ndaw bi dal ba keroog muy am bac a dugg université dem Touba dugg université fi ñu toll projet baa ngi fi incha allah buñ gàmmoo ba ci ginnaaw suba sa ci lañ koy tàmbali projet jumaa jaa fi projet yeneen a ngi fi kon daal sëriñ bi nee mi ngi dalal sam xel di la wax ne la ñëw nga ci béréb boo war a ñëw fekk nga fi ñi ngi fi war a fekk danañ la jàpp jàppin wu la war a jàppe ba sa xel na dal kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ci kàddu yi ci des boo àggee ba ci biir ba toog ak moom incha allah dana ko mottalil boppam euh, di bu rafet bi ak bi di la wax ne leen moom loolu la ñor nga xam ne ci ngay xëy suba di ci yendu moom it ci lay xëy mooy dajale lépp rek ndax moom nee lépp benn la tarixa yeeg yëpp aw tur rek la li fi nekk mooy ku tedd gi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku ne branche bi nga xëcc ci branche foofu rek la jëm amul beneen yoon yoon yi nag mën nañoo tàqaliko kii jaare ko fii kii jaare ko fii kii jaare ko fee waaye dajewuwaay bi benn rek la te mooy yonente bi sallallahu ñëpp foofu la ñuy daje kon nag bi nee na bi nga ci dox te di ci dox dox yi wu rafet sëriñ bi nee na sedd na xolam euh, ñëw gi nga fi ñëwit mbégtee ma lool ba mënu ko wax sax nee na mbégte mu réeree la ci am kon mi ngi lay dalal jàmm fii ci Darou Mouhty te di la ubbil bunt yi fi nekk di la wax ne la sa kër nga ñëw ci say njaboot nga ñëw sa alal nga ñëw ci sa lépp nga ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kenn demul Cerno Birahim Mbacke yaa di ndar Cerno doy nga noo ñëw daara du tollu de ak Serigne Touba ki ñëw daara du tollu ci altam seen yow foo dem lëfër lëfër ji bari loolu la yàlla